masaki komemba alo ni masare komemba beke yiite manamana fola lulu ni masare komemba doye ngozila kana ngozi jamaro tema doye nenila kana neni jamaro nyala ye doye nenila kana neni jamaro jamaro malomandi nene jalile fanga denke wax naa leen ko mooy jali pire mooy jali international fii lay daan sama doole lii mooy sama daan doole waaw woy bi waaw ñu ñëw si ki nga xam ne mooy nene jali tey ñu fekk si airport bi lay def fee dama am sama géer buy ñu tey hmm. di strand soxna madame Gumane ca Amérique New York guma o tumanigi sa katay si Epo kabuga mo fong kumamasalak am matik ya. hmm wow tangan nyo kuya ko o tangan nyo rek kujol ko no dama nyo rek kujol ko yob ko kiram li war sama digante ak mama def ko degal ko hmm wow kon am na ñuy Europe jógee Amérique a di oo géwél yi yow man su may lu may def dafa lu la neex eh. maa ngi sa gannaaw gis nga ku amul nee jël sa jamono bii hmm. non amoo tus nena ñu gis jamono ji yaa ngi limbi àddina ah ñu gis la ci Kora gay seen xew bi you know kunda lay waxat sax ha mm-hmm. ah, ñu gis li ngeen fa def deug la waaw ñu sama diir lañ over can be maa ngi ak maa ngi am ak waaw parce que man kepp ko ma gis tey rek xam naa su ma géer du ma japp baye mm-hmm. waaw dañ ma yaaka teral ma yaaka ak ñoom dara mos na suma diggante